barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy ngeen ne rek ku ñu nguur nguur gu rëy la rawatina réew ya mu juddu bésu alxames fukki fan ak juróom ci weeru rajab atum mu tollook 8 novembre ci 1900 ci nekk benn dëkk boo xam ne mu ngi nekk ci Sine Saloum toll ci fukki kilomètre ak ñeent ci xarfu ñoro dirib Baye Niass turam dëgg di El Hadj Ibrahima Niass nekk doom ci El Hadj Abdoulaye ak ki nga xam ne mooy soxna Aysatu Jànqa ki war a nekk Cheikh Islam mokkal alxuraan ci ndawam ci roon way juróom bu góor continuer di jàng xam-xam naka noonu di ko jàngale ca lew nañu seen Baye xam ne moom mooy xalifa Cheikh Ahmad Tidiane nekk nga xam ne it mooy borom faydu bi dal woo taalibe yi ngir ñu topp ko ci atum 1930 mu sanc dëkk bi di Medina Baye taxawal fa zawiya bu njëkk ci atum 1931 naka noonu jumaam ju mag ji ci atum mu nekk at mu am solo ci dundam moom Cheikh Ibrahima Niass ci la def tukki bu njëkk génn Sénégal dem aji Màkka dajee fa ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bayero nekkoon buuru Kano ginnaaw a tasaaroo ci àdduna wërngal këpp rawatina dendu Afrique yi ci jeexitalu atum 1960 yi Cheikh am na toll ci ay millions yi taalibe ci Afrique sowu jant ca Mauritanie Niger Togo Guinée Ghana Burkina Faso Tchad ak sax ci fi nga xam ne mooy Cameroun mu taalif ay téere yu bari domaine wute ci wàllu xam-xam taxawalit ci islamique El Hadj ci atum 1970 tukki ci gox yi fasantikoo ci àdduna bi ci jamono boo xam ne àdduna bi mu ngi am ay jafe mooy drapeau l'islam naka noonu tasaare sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokkoon ci ñi jiite conseil supérieur organisation et bien-être islamique ci réewum Égypte bokkoon ci juróom bi ñuy gëstoo ci wàllu xam-xam ci université bu Al naka noonu kenn ci kuréel gu kawe gi nga xam ne mu ëmb borom xam-xam yi nekkoon ci Algérie mu bokkoon ci nga xam ne ñoo xalaat ci taxawal OCI ginnaaw bi nga xamee ne lakk nañ jumaawu Al Quds Cheikh Ibrahima Niass ñu sargal ko tappal ko raaya ci réew yu bari ñu mën tudd Grand Croix légion d'honneur et ordre du mérite ci réew France naka noonu médaille nationale réew Égypte médaille étoile noire ci réewum Ghana médaille d'honneur ci réewum Gambie ñu sargalé ko it titre docteur honoris causa ci université yu bari ci réew arabe yi Baye Niass dal di génn aduna samedi fukki fan ak juróom ben ci wéru rajab ci atum 1395 mu tollu ak ñaar fukki fan ak juróom ben ci wéru juillet atum 1975 ci ben hôpital bu ñuy wax Saint Thomas mu nekk ci Londres ñu dal di koy denc ñetti fan ginnaaw bu mu ci penku jumaam ja ci Medina Baye mu nekk nak dat bo xamné mo jéxalon mission ci kaw suuf mu tollon ci ñaar fukk ak juróom ben junni ak juróomi